salaamaaleykum amis fidèles internautes yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy bàyyi xel à travers euh, Dakar plus univers info euh, dal leen ak jàmm tey nag euh, ñu ngi fii ci bésu Seydina Limaamu Laay borom yaa ma sonal bi ñuy wan in si inni rasulullahi aleykum buñ fi fekkee Pawlish Mbaye moom mi nga xamante ni yaakaar naa ni taalibe Cheikh la waaye xàmmee woo ko tey ak ñi nga xamante ni ñoo di taalibe Seydina Limaamu Laay Pawlish ñu ngi lay xool baax a baax di la jox sa wàccuwaay damay nekk taalibe Limaamu Laay rek loolu lay doon. ah lu may du tey du lay du tey. ah pour la vie mhm. la. Mhm. la bisu. bisu bisu teraanga la bisu benn parce que maanaam bu wootee ay njabootam wootee si ko woote ay taalibe woote ay njabootam woote mhm. si am na ay njabootam ay taalibe woote ñëpp nekk benn mhm. bisu wukki la bisu bisu waxtaan la bisu bàyyi la mhm. bisu réseau ku randal jiw day na dëkk seen i dëkk mu dëkk képp ku nit ci am lay dëkk képp ku gisul lu ko war a taal war ko jëmmal war ko doole ma ko ñu ma contacté ci dëkk bi muy sama premier appel ndax sama soxla ci jàmm lan jànga jàngaat ci bés bi parce que moo nekk sa premier appel yow ak sa soxla mu mel ni yokkute am na boobu ba léegi. waaw àddina moom boo ci fekkee nit mhm. baax muy doomu Serigne Ablaye. xam na sang la. Pawlish euh, ñu bari nee nañ appel bi ñi nga xamante ni ñoo di nitu show bi si dañ ciy profité pour dund folklore mu mel ni euh, ñoom euh, jàngale bi nga xamante ni moom di Seydina Limaamu Laay moom la jàngale ñu ci bari dañ koy teggi fële nekk ci lu leen neex. xam nga appel moom ku nekk na ngay appelé bu dee nañu folklore bu déwén jotee doo tala folklore parce que bàyyi laay la bu caaxaan. bu caaxaan. parce que solution la ci seen i bés bu caaxaan. Mhm. ku koy def ku koy caaxaan bu déwénee doo ko def wala boo ko def da ngaa feebar boo xam ne da nga ko nëbbuwaale. Mhm. ku ci mel ne Serigne Touba. ku ci mel ne Serigne Babacar Sy. ku ci mel tarixa yëpp ci àddina. ba ci pàcc pàcc yi chrétien yi ka ku nekk la nga gëm. boo ko sàgganee boo ko sàgganee bés dina ñëw di nga toog jooy. di nga toog jooy waaw que na am na lu yàlla def fi sëriñ bis kenn du ko caaxaane mhm. ñu dund showbiz ne xam naa ne bu subaa fii dina am lu bëri gis ci showbiz yi ñu ne toj at nañ toj dar yi waaye parce que li ko sàgg ne bésu bàyyi laay bi wala nga wala nga foowee ko bu demee côté dina am dal loo xam ne doo ko waxee wala moom sax nga génn àddina parce que bésu bàyyi laay du caaxaan bésu bu caaxaan yow ku rëbb am na am na ñoo xam ne seen bis yi dañ leen koy wormaal mën nañoo at mais am na seen i bis xam ne ñoo ko moom seen ñu wormaal nañ ko bu jeexee ñu a i bis bu koy fo si la xam ne ñoom feebar dafa jafe te ñoom ñoo ko teg parce que seen i bis liggéey ba si fii mhm. dañ leen ko wormaal parce que yàggul waaw dañ ñëpp yàlla na yàlla def jàmm daal situation politique réew mi nit ñi nee nañ euh, ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi dafa war a dellu ginnaaw gis nañ ni euh, yenn jeunes yi wala yenn influenceurs yi euh, ña ngay euh, joxoñ baaraam tuuma ñi nga xamante ni moo di suñu njiit yi nee kilifa yi dañoo génn war a wax ci li nga xamante ni moo di situation politique réew mi en tant que nga doon nit koo xamante ni sénégalais dañ lay bàyyi xel yan kàddu ngay yëngati jëmali ko ci tàkk-tàkk yi nga xamante ni wala manifestant yi nga xamante ni ñooy jël bagage jàmm wala lakk wala di toj ay li nga xamante ni alalu réew mi fekk yoof laa la fekk ci bésu kan muy bésu lan jaamu yàlla muy bésu lan diine muy bésu lan xam-xam dafa gis tàkk-tàkk déedéet dafa gis tàkk romaset déedéet dafa gis homme de technique déedéet dafa gis ñuy sànni xeer déedéet dafa gis gis Signali déedéet dañ fay gis Karim déedéet dañ fay gis Sonko déedéet Euh, xeexkat yi. déedéet. da nga gis tàkk-tàkk. non non. Ah, da nga fay gis lu bon. lu baax. da nga fay gis lu xaraam. déedéet. barke Serigne Touba maa ko dama laa bëgg yàlla xam na ko billaahi mooy yoo nga xam mooy kër Pape Seck lii ñuy def muy tàgg Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam mooy li nga xam ne moo gënal yàlla ci kaw suuf ndax wa innaka la ala xuluqin asim waaw dëgg la tout d'abord maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu monde entier jëlale nit ñëpp Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ren ñu fekkewaat ko yàlla nañ ko fekke at yu bari yàlla defee comme li nga wax rek Pape Seck moom sama xarit jotaay yu mel nii ah, ah. di jotaay yu occasion la ay frère am bëgg ma ay xaritam bëgg ma waa ADESM ak ñëpp bëgg ma ku nekk dafa war a bu ma xewlee mi ngi ñëw donc c'est très normal bu xewlee ma nit ma bàyyi sama yitte yëpp looloo waral sama bi. am ak dal ak teewlu ba jotaayu bis bu bu yiw bi nga xam ne sëñ Nende Seck sëñ Nende Seck noonu lay ziyaara bu baax ngir Serigne Mbacke Madina ñi nga xam ni mooy borom cee nag. waaw bu nekk bisam la am. ak xaar yàlla maa ngi di di nuyu lébu yëpp di nuyu laayeen yëpp. di wax euh, lépp loo xam ne ñaan nañ ko fi rek yàlla ko suñu borom defal bi ku ne xam na ne jamono ji dëkk bi yëngu na ñu ngi ñaan ci barke appelu Baye Laay bi yàlla na lépp jàmm lépp dal suñu borom def fi jàmm def ko ci diine bi ci sport bi ci ci tarixa yi def ko ci politique bi def ko ci ci lépp daal maa ngi ñaan yàlla na jàmm bu baax a baax a baax waaye mu ànd ak magam xaritam ñu bokk dañ ma bëgg rek dañ ma bëgg rek lépp moom ku ne xam ne ni li ma bëgg nag askan boo xam ne lépp looy wër ci gor rek mi ngi ci ñoom diiñ nañu baax na mën nañu sot bëgg nañu doomu aadama te fii nag ñu nekk ni nag yàlla dafa dogal ne nag parc lépp parc lébuy la ku fi dëkk ñoo la xàjjil donc nag ci la nekkaay dëkk ah, mu nekkoon seen jamono ay maami maam ba tey ji ñun ñu ñëw dëkk fi ci jàmm wax dëgg yàlla ñu yaatal ñëpp nag donc ñooñu kenn amul seen fay moo tax maa ngi leen di wax ne nañu ma xaar maa ngi leen di waajal benn morceau bu baax boo xam ne ni ma def ci album bi pour delloowaat ci njukkal lébu yi delloowaat ci njukkal laay macha allah waaye ngi gis bu yàggul dara di la jaale wat encore une fois suñu yaay di nga xam ne Maguette Diouf Diaga yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ci daw ñu nga bàyyi lépp sa activité yëpp nga annulé ko dem taxawoo ki nga xam ne rek mooy sa sa frère ak sa xarit Wally uh, nga xam yi li ma war rek laa def li ma war laa def maa ngi koy jaalewaat di ko masaw bu baax te ñaanu ma ko yàlla xam naa ni loolu bu ma daloon nit ñaanu ma ko yàlla yàlla yéex kenn du ko fa jiitu donc sama wareef rek laa def bugguma sax di Eh, waaye sama wareef rek laa def maa ngi koy masawu encore une fois di ko wax loolu yàlla dafa gën te moom mi fi desit yàlla may ko xoluk muñ te guddal ay fanam loolu. macha allah amiin amiin mooy ñenn ñi nekk ci internet bi comme ni nga waxee di ko di ko naan waa waru ko woon dem ndax jaawale sóobis ak li nga xam ni mooy xol doomu aadama. waaw mais ñooñu moom xam nga tu peux pas répondre loolu moom ay détails la. doomu aadama boo nekkee ci dëkk da xoolal li la war rek ak say kilifa yu baax yi ñu doxee nga di ko doxee li ma war def naa ko ànd ak suma staff suma label suma xarit suma ay doomu ndey suma ay mag suma producteur li ma war ma dem defi ko te bi ma fa eggee moom mi ndayu mbi gi wax dëgg neex yàlla il bien bien accueilli donc ñu waxtaan kaf foore bokk ndey ak bàyyi donc loolu loolu moo ma intéressé mais quant yeneen yi c'est des détails quoi te ku jiitu rek waaw mais àdduna li suñu kanam xamuñu ko yàlla mën na def lu nekk yàlla mën na def lu nekk mais comme que instant moom ñi ngi ci ñi ngi ci ñi euh, appel bi. dañoo bëgg rek ñu teewlu bu pare. léegi beneen yoon bu ñu waxee ci affaire show bi loolu dinañ ci gën a yaatal incha allah loolu du dara maa ngi leen di jaay merci beaucoup. man sa diggante ba foo romb ngay dégg maam bi. tey nga ñëw nar ko dabali fii ci appel bi. waaw xam nga suñu mbokk laayee ni ñoo xewle. Mhm. te ñoom dañoo baax macha bu ñu bu ñu bu rek réew mi day daal di yëngu. à tout moment mhm. ndax nee naa la ñun ñu ngi fépp. Mhm. ndax ñun ñëpp benn lañ. yow nga def sa balance. waaw ma def sama ñoom balaa la ñu woote kay. Mhm. ñu def balaa rek. très bien. mbaaw xeeboo ko. non non waaw ah, li nga sant rëy na. salaamaaleykum. baax leer. yéen daal nee ngeen yéen daal yéen xam nga la ngeen di bañ a. yéen journaliste yi xam nga lan ngeen di bañ a lan ngeen lan ngeen xaay. Ah. yéen mbana ak rosi ngeen di bañ a gis. <laughs> yéen daal nee ngeen lu xewle. Hmm. mbana. Hmm. rosi. Hmm. lépp yéen a gis. Ah. yàlla leen yàlla defal jàmm. da ngaa baax nag da ngaa bëgg journaliste yi de. du na waaye dinaa am sax journaliste. <laughs> li ngeen ma bindal lépp ci réew mi. Ah. yéen a ñàkk jom te ñàkk borom. ngeen ñëw ma dalal leen maam la koy wax lool bokku ci. ma dalal leen ngeen yàq lay dalal nga ñu. lay dalal nga ñu. non dafa am ñu ko def. waaye ñenn ñi nga xam ne ñoom xàmmee nga leen duñ la bindal lu baax. ñu def loolu dëgg yàlla. yéen da ngeen a baax. daal ñoo xam duñu bind lu baax ne yéen ay noppi gar bi ngeen yor yor ay boy gar bi te foo fekk journaliste buy bind lu baax day am lu baax kenn mënu ci dara waaye ñoom ñu la gis ñu bind lu baax gisoo ne dañuy geree rek seen i pire dimanche. ak seen i imam di gërëm. lu waay wax moom salaamaaleykum. maam sa xarit bàyyi na guy gi sa xarit bàyyi na guy gi mais nii nga def nii nga def kaay la ñëw leen kaay dugg toog mais passe man loolu لا نكتي عن حاضر مثلا من جاي Jambari sëñ Fallu di ñëw. But, um, പതിനാറുവോ Thank you.